<laughs> metre kaddu gaa ngoog ñu bàyyi la nga dalal sa champion. waaw bétti euh, tey ndey faatu Diagne lañ fi am. Mm-hmm. alias Diana Lopez Diana ñu ngi lay nuyu di la dalal si plateau di delloo di leen sant aussi ah. di di di nuyu ñëpp daal. Mm-hmm. waaw ok mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp. man la Ndeye faatu euh, di entraîner Pikine ginnaaw raay aussi ah alias Diana Lopez. voilà Betty moo ngi noonu Diana bi ngay def compétition ba combat bi lan nga yëg exactement stress. wala xalaatoon di nga gagné wala dara mooy combat bi. Euh, bi Espama la woon Espama. ah Espama parcelle. Euh, oui parcelle lañ ko defee woon aussi nekkoon euh, compétition mais c' était trop stressant aussi. parce ah. que mun na naa sama la. parce que ñëw rek ñu ne la da ngay yéeg te mosoo compétir xamoo loolu aussi. nekk noonu la xamante ne dina dina la xaw a dina la xaw a tuusi aussi di nga xaw a stressé ah, compétition bi fekk mooy sa première compétition. sama deuxième participation si Espoir mais ah, Espoir laa njëkk a def sama premier kii participation si ay compétition yooyu noonu. Euh, moo tax it. Euh, premier jour bu ma ñëwee bu ma ñëwee ba bañ ma woowee ba ma ñëw dama hmm. xawoon extrême ba ma wàccee stapi bi hmm. après xaw na am fiir di ko compétir naa compétir naa maître aussi mu nekkoon sama coach hmm. dalaloon na ma xelal na ma lii que sa première compétition waneel tout simplement ay jigéen donc ñoo fi nekk parce que ay jigéen ngay nga nga fi de kii te yéen a bokk catégorie si ëppalewu dara c'est juste des entraînements ngay ñëw wane li nga li nga liggéey li nga liggéey saa rek loolu moo tax ñu te bañ ñëwee ñu def la même chose ñu liggéey ko si aussi compétition bi ban médaille nga si amoon médaille d'argent. médaille d'argent nga moom. ok léegi euh, yow lan moo la dugg lan moo tax nga dugg ci taekwondo dafa dafa gën a facile bon pas dire facile dafa gën a euh, adapté wu ak jigéen walla sa yow sa. sa sa niveau wala peut-être da nga dugg ci famille boo xam te ne dañuy def taekwondo. non non sama famille kenn defu ci taekwondo. Hmm. juste ne dama xawoon bëgg affaire de def ay sport daal. Hmm. mais xaw ma woon ban genre de sport aussi. Euh, ba ma amee bac dama daan toggaale def ma dara. dëpp dama daan entraîné sama di nuyuwaale si passage moom sama xa sama frère Balla Ba moom moo booleeg waa salle bi. Mm. moom moom présenté ñoom maître ñoom maître aussi ñëw boole ma seen biir. Mm. def ma ma doon combattant aussi parce que mosuma toog ba xalaat ni sax dinaa xëy nekk combatant mm. mais xam nga ñu entraîné ma gis na ni ma mën naa war a doon combattante. ñu formé ma si loolu aussi te maa leen sant bu baax a baax baax. léegi yomb si si jigéen yomb na pour def taekwondo arts martiaux bon. amanso yomb na yombul. Hmm. puisque man mën naa accepter ma def ko. Hmm. mais ñeneen ñi mën nañu mun la ko accepter parce que question bi day ñëw chaque jour dañu koy poser. pourquoi waaw pourquoi jigéen la lay def ci ay arts martiaux tu vois c'est un peu trop bizarre quoi mais après ñoom te ñu la koy poser ce sont ceux ñoo xam ne ñoom ñoo ko dul pratiquer. man dama yaakaar ne on dit un esprit c'est dans un corps sain. mais waxuñu un esprit c'est dans un corps d'homme kon xam nga loolu génération lépp loo gis. saa loo xam si loolu xam nga lépp génération lépp nit ku léegi da xool rek li nga xamante ne. Uh-huh. Euh, waaw man li nga xam ne santé daal amul góor amul jigéen. Uh-huh. képp ku nga xamante ne rek. nëbal cuuraay. <laughs> non loolu loolu loolu loolu bokk na si bokk na si ah non loolu bokk na si mais <laughs> aussi mais aussi pour ngay pratiquer sport si baax aussi ah. la santé. <laughs> yàlla. jigéen joo gis buy def sport mënta cuuraay. ay saa laa la. Ah. ku ma ne yow man yow gisoo sukaa bee eeru <laughs> cuuraay eh? la yor formation cuuraay. xool mais léegi man c'est que Pape eh. man eh, li may wax kii. xam nga man bon damay wax ne bon pren saay yéen ñi nga xamante ne bi jigéen ngeen. def lu ci mel ni taekwondo wala sport bu jëm ci wàllu combat yooyu. Mm-hmm. est-ce que di ngeen faral di am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi bëgganteeg façon jigéen ñooñu ñu dut ñu nekk ci cadre bi. parce que parce que c'est pas sûr takk jabar mu duma la waaw dina métti trop parce que dañu koy posé yenn saa ànd nit mu la koy wax nii ne man du ma am du ah. soxna soo xamante day pratiquer ay taekwondo de peur da ragal mu lay dóor ak yooyu ah. mais problème mooy ñun entraîné wuñu pour dóore wala entraîné wuñu pour xeex ah, loolu ngeen di wax waaye ça dépend situation am na ñu jot ngeen duma ko <laughs> waaw léegi imagine toi léegi ci loxo bëgg la mbéj euh, la lépp self défense la imagine toi léegi mais bëgg naa mais di nga def su ma doon wax may ma l'islam da ko <laughs> wax sa jabar bu defee nako su mën nga koo bàcc bàcc maanaam mën nga mën nga koo dóor waa ngi dégg oustaz Talla Soos nag nee na nga jël kii bu kii ne ko ba pare non mais dóor war naa am <laughs> non dóor war na am mënta ñàkk parce que am na yenn yi tamit kon da ngeen war a xam nga doo jàng ni ngay jàng ba noppi dina nga ñu lay dóor ah mais non waaw xam nga loolu mooy erreur mais aussi jàng ma li ma jàng mais aussi li ma jàng pour tooñ mais aussi jàng ma li ñuy jàng pour tooñ yéen défense yi yéen défense yi dóor la di non non mooy ko dam moo aussi mais jànguñu aussi pour dóor jànguñu aussi pour di tooñ ah déjà mun na mun na ne mun nañoo ne ça c'est juste une genre pour am confiance su ñun aussi quelque quelque fois nga am confiance en soi aussi parce que yenn saay da xëy man pour de pour ma fekk sama cas dama daan xëy parce que Pikine laa jóge dem UCAD te dafay sori si man mm-hmm. distance bi aussi te 6 heures heure bi bi bi gis nga heure bi muy demee mm-hmm. day xaw a day xaw a kii mm-hmm. ci waaj da nga waaj 18 heures tali bi ngay toog ba 20 heures tamit tey il faut il faut au moins nga def benn self défense boo xam ne c'est pas juste parce que da nga ko def da bëgg di tooñ di xeex ak yooyu mais juste en cas pour prévenir aussi loolu da si am solo da nga wax si affaire protection euh, protéger sa bopp pour gën a am confiance en soi léegi loolu euh, si si si arts bi ak fi saa waxee comme jigéen si kër ak yooyu léegi euh, bu la bu la nit bu la nit attaqué looy looy def da ngay réagir am dooy réagir parce que foofu <laughs> doo tëb tëb réagir ah doo tëb tëb rek réagir sans départ mën na bu fekkee mën na la tooñ noonu pour ay kaf ak yooyu mm. mais aussi di nga dem au cas boo xamante ni doo ñàkk fay aussi parce que nit tamit doo taxaw di xool ñu lay attaque nga taxaw di xool nga dem ah. jàng naa bu ma def tée say ah. branche non ça se fait eh, eh, pas aussi il faut au moins même doo ko dóor ba mu ba mu am ay blessures mais au moins di nga def self défense boo xamante ne di nga di nga mën a di mën a kuure ay kii kay arrêt kuweeg yooyu noonu. d'accord léegi Ndeye Fatou euh, ku la gis xam naa ni yaa ngi naan bi nga amee bac donc bi nga duggee ci milieu art martial bi yàggul. non non yàggul def nga si ñaata at. deux ans doo nga lay toll. deux ans deux ans déjà championne. <laughs> du Sénégal yooyu ah, bravo léegi léegi yéen seen salle bi ci euh, vidéo yu nu xool léegi. Mhm. dafa mel ne dama ci gis différente catégories. waay waay ay à partir de quel âge la ñuy jël xale yi foofu. Euh, bëri na parce que am nañ compétition yoo xam ne minime junior cadet ak senior. senior ah comme. waaw comme kii ay. dañuy échelonné rek waaye c'est ça. d'accord léegi ku toll ni saa nii wala ku mel ni saa tey jii ñoom am nañ fa place. pour jàng défense ak yooyu plus de 80 la ñuy yéeg Moussa Ndiog bu ñëw tey plus de 80 lañ koy yóbbu. plus de 80. 80 kilos plus de 80 kilos. <laughs> ah, ah. <laughs> eggalul. waaye 80 man maa la ko wax man mii. ah waaw rek. pesé wu rek xool. pesé wu rek xool kay moom. mais aussi ci biir sa biir wax da nga dégg danga mel na ko wax affaire sédentarité danga mel na ko ne sport ak santé. dafa baax ci jigéen wala dara da nga gis ñoo xamante ni ay jigéen lañu mais pratiqué wuñu defuñu dara defuñu maintien ni mu am lu mu leen jural wala lan la. c'est ça mais déjà premièrement da ngay tayal parce que man ba daan toog def ma dara. sport da ngay tayal. dafoo dara toog sa kër kase il faut aussi dañoo xam yenn saa sax da nga dem hôpital ñu ne la del del del doxantu parce que doxantu sax mën nañoo ne genre petit sport aussi del doxantu parce que lekk rek tëdd baaxul aussi ah léegi faree ngay dem di def sport même même bu nekkul taekwondo di nga def gym mm-hmm. xaw kii sa yaram ak yooyu loolu moo tax à l'extérieur mos nga génn compétir si dem na non pas à l'extérieur juste hors Dakar rek ah Dakar mm-hmm. biir Sénégal waaye si Sénégal d'accord di di ko féliciter bu baax di ko encourager xam naa ni li naan un esprit sain dans un corps sain waaye esprit bi macha allah ah, ah macha allah bi ngay nuyoo foogal naan di nga ragal waaye ñi nga téye saa xam naa ni ah allah di la encourager bu baax di la di la féliciter ci euh, taxawaay bi. Mhm. mais aussi tamit di encourager Lopez ah Babacar Sow. Ah, waa ginnaaw raay moom ku passionné la ku am passion. Mhm. moom jàmm. <laughs> moom jàmbaar la am na taxawaay bu am solo te li li lay wan ni rek li ci moom mi ngi koy def ci yeneenu gone te loolu banlieue bi da koy soxla parce que booy dañuy nekk ci yeneen yoo xam ne tey jii bu nu amee li leen di occupé comme nii day baax ci seen yar mais aussi tamit ci seen avancement mais dama la bëggoon laaj comme yow nee nga da ngay jàng nan boole sport bi ak étude bi est-ce que benn bi du gàllankoor benn beneen bi aussi tamit sànq da ngay wax rek ci self défense mais aussi est-ce que am nga yeneen ambition yoo xam ne dafa jéggi doon self défense mais ambition wu. Ah, ah, waaw maanaam ambition wu am ay titre continental wala yooyu représenté Sénégal ah. waaw pour première question bi. Hmm. Euh, entraînement bi c'est pas aussi difficile ah yow yaay choisir déjà on commence de 17 heures à 19 heures. bu la arrangé nga ñëw de 19h à 21h bu la arrangé ñëw man dama daan def cours organisation la laaj aussi sans départ ci cours yi nga am maître bañ ko ba forcé wul kenn ah on entraîne de lundi au samedi yow yaa xool nag si jour yooyu noonu kañ nga si disponible nga ñëw def si entraînement. mais des fois fatigue bi day laaj récupération te. non yenn saa dañuy sonn kay da ngay yenn saa dama naan ñëw rek teg sama saak rek obligé préparer pour pour pour dem entraîner ji. waaye mm-hmm. c'est ça léegi ambition ambition ah, waaw c'est ça de parce que déjà ñëw rek wàcc rek commencé am non c'est que yi ñu dugg nii hmm. mooy mooy di grave yow sport boo xam ni maanaam ñi koy def buñ ñëwee ministre du leen dalal amul leen dara <laughs> yaa dara niw loo ci wut ah man nee naa dugguma si woon parce que dama koo xamoon wala dama ko bëggoon. Mm, mm. c'est juste dañ ma boole ak waa Saal mais bu ma si duggee am naa passion bi pour continuer ak moom. pour moo tax ma ne objectif bi aussi. passion waaw ma soog am passion parce que xaw ma ko woon aussi ba a dugg. dañ ma dañ maa mm. boole ak waa Saal ak yow. dañ ma si ah, waaw dañ maa dugg léegi léegi bi. Euh, waaw comme li nga wax pour ay titres yooyu aussi ñu ngi koy ñaan bugg ah, nañ tey euh, dégg tey Ndeye faatu bu ñu nee sport féminin ñu ko koy dégg ci fii Sénégal au Sénégal aussi si mosoon naa dem sélection équipe nationale mhm. benn c'est présélection équipe nationale présélection mais dans la sélection de la mujj kii wala non non dama amoon problème de ceinture ah, xam nga mënoo xëy xëy nekk ma xam équipe nationale il faut il faut nga nekk nga am ceinture rouge wala noir du coup yow laa koy posé mhm. parce que kii nee na deux la def ci arts martiaux mhm. mu def euh, yenn euh, kii bi ni waaw ba tey taekwondo mais mais euh, ni mu kiiwee ci deux ans yii nii lan moo ko waral coach bi kii bi maître bi ko yor moo baax walla lan la parce ci deux ans nit def na ci deux ans te amul évolution bi mu am waaw waaw bon bu dee affaire bi deux ans <laughs> saa maître la de <laughs> bon sans sans dépendre xam nga arts martiaux évolution la léegi booy. boo boo boo boo boo duggee am si benn avancement régulier. waaw boo régulier rek euh, mën na la apporter lu bari ça veut dire que ça veut pas dire que ne maître nga wala instructeur nga wala dara mais champion moom mën nga ko nekk. parce que man deux ans yi moo nekk sama xel sànq ba léegi. waaw ak yi muy wax ba ñu sélectionné. waaw mais xam nga champion xam nga champion moom euh, kii la parce que nit ki fan la arts martiaux di soree mooy niveau euh, niveau supérieur li ñuy wax si côté maître. nekk professeur ne affaire foofu moo difficile ci arts mais bu dee affaire dëgër nga yaa ngi régulier yaa ngi travailler correctement pour nekk champion boo amee ah, objectif bi c'est pas facile ba pare aussi championnat champion day continuer nekk champion ci un an mën na nekk champion deux ans trois ans continuer li am solo nag mooy nga nekk champion continuer di ko nekk pas nekk ko tey suba nga waaw maintenir ko parce que foofu lay amee njariñ quoi d'accord léegi ah, ah. waaw léegi man fi ma fi ma kii woon mooy jigéen ñi. waaw naa mooy dernière bon ji voilà dañuy wax jigéen jigéen euh, yow taekwondo si boppam. danga nga sànq da nga wax ne da euh, nga dugg ba pare door see xam mais bi nga duggee ba pare lan moo la si poussé nga resté mooy yan valeur ak yan jàngal la ñuy jàngal pour nga xam ne moom nga xam xam ne bii kat nekkate moom mooy bu baax bi. Euh, déjà li ñuy njëkk jàngal mooy. Mhm. maîtrise de soi. maîtrise de soi waaw loolu la ñuy njëkk jàngal jàngal. Mhm. boo ñëwee dañ leen naan ici c'est la famille. Mhm. dañuy def tout ah euh, bu fekkee danga nga da nga da nga xam ne da ngay gaaw di mer ñoom dinañ def tout ba dootoo gaaw a mer. dina la jàngal àddina aussi ah. mën naa ne c'est juste comme genre kii euh, kiiw. Euh, armée yi aussi ah. parce que dañuy armée dañuy former aussi ah da ngay respecter sam ki la mag ak ki jiitu booy bi la gën a ndaw mhm. bon donte yaa ko mag mais moo la jiitu sax da nga koy jox cër mhm. da nga koy moom moo la jiitu sax moo la ëpp séentu da nga koy jox te cër boobu di moom tamit dina la ko delloo mhm. ay valeurs yoo xam ne dañu koy jàngal ci biir salle bi te metre da ciy veillé bu baax aussi ah. Mm. dañ ciy veillé bu baax moom ba a ko sax loo gën a nekk mag nekk mag boo deful loolu moom dalay wàccee. mais ci seen salle yan difficulté ngeen de am seen autorité local yi ñu ngi leen di. jàppale difficulté bi moom pour def armation il faut nga am. salle salle <laughs> il faut saxal autorité locale non non ah, ah, ah, mais déjà pour def armation il faut waaye Ablaye Diop d'accord il faut nga def il faut nga am salle enfermée xam nga foo xam ne da mën a entrer mais déjà ñun bu ñu entrer en plein air la ñuy entrer mais plein air gënul ku ne di nooyi bu fekkee sedda <laughs> non mais bu fekkee sedda mhm. doo mën a entraîner normalement parce que loo entraîner après déjà ngelaw bi mhm. ah day day day day day freiner doo di nga ah. di nga entraîner ba ñàkk doo am doo am suyoo doo ñàkk quoi parce que daa baax daa nekk si dafa baax si ba pare taekwondo aussi dañuy imposer benn façon façon façon salle. waaw kay dafa yow da war am salle parce que booy préparer comp compétition. c'est pas parce que da war a foo xam ne ku romb da gis. Ah, salle fermée ngeen di waaw daal amuñu ko instant plein air la loolu moo tax. d'accord dem leen Ablaye Diop jàpp ci. day day bañ <laughs> dernier mot bi. waaw looy tëjee man dernier mot j'aime pas du tout. <laughs> bëgguma looy tëjee kon sa ah waa di nuyu ñëpp aussi ah. Mhm. di di di di nuyu sama waa kii sama famille sama waa Sall aussi ah di nuyu sama papa Sias mi nga xamante ni moom moom bàyyi tey bu mun a ñëw fi parce que waroon naa xëy mais xëyuma. aussi di nuyu sama yaay bu baax moom nga xamante ni su ma toogee sax daf may naan tey demoo Sall temps yaa ngi commencé daw donte moom xamul. Euh, musul def sport mais aussi moom dafa may pousser pour mu siy dem ah. mhm. waaw ma koy nuyu bu baax ak sama xarit sama doom ndey kii ñu ay Ndiaye. ñu eh, ne Babacar sa maître la. sa maître. <laughs> ki mu àndal kan la. <laughs> ko saal bi la bokk. <laughs> ñii demal. waaw béti sant yàlla sant yàlla bu baax aussi de. di di di wax ne comme seen seen weer la même bii di ñëw aussi tamit si ñoo ngi si jigéen ñi. tant que moom bu góor ñëwee du ma wax ak moom. waaw <laughs> waaw loolu dëgg la waaw di wax ne aussi mën nañu leen a ñeme bon xam naa éducation bu baax la ñuy am. léegi di wax ne xam naa ba mardi prochain ñu indiwaat ñu indiwaat keneen di nuyu petit tey moom dama supporter aussi gaynde yi comme prochain prochain match comme saa ñu ñu ñaanale ñu gagné.